asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di jaajëfal di leen dalal jàmm ci la sportif di leen wax ngeen aimé ngeen abonné aussi tamit ci chaîne bi ñu continuer quiz bi nga xamante ne si dañ koy def bis bu nekk pour permettre ñi nga xamante ne si dañoo bëgg a dem seetaani match retour Sénégal Égypte mu nekk qualification mondiale Qatar 2022 muy match retour bi te ñu war ko jouer ci stade Ablaye Wade le 29 mars incha allah. ñu leen di permettre fii ñu fii mën a gagné tikkee comme ni ko waxee woon rek li ñu amoon yéene moom lañu bëgg a yeggal yi yàlla di ñaan yàlla jàppale ñu ci bés bu nekk ñu maye ñett ticket waaw ñi nga xamante ne sii nag ñoom ñoo gañe woon bërki démb muy premier jour bi damay fàttali seen tur Saliou Ndiaye woo nga ma nee nga yaa ngi may def signe WhatsApp en tout cas maa lay déglu Ibrahima Gueye gagné na moom aussi tamit euh, voilà bokk na ci premier gagnant yi ak bio question bu démb bi nag jour bii lan nëbboon comme ni ngeen ko gisee nii ñu nëbb kanam bi Abdou Lahad Diallo la ba mu nekkee Jules Waregem voilà euh, ñett gagnants yi déjà génnee nañ leen mais dañ leen di wax rek que ni ñi nga xam danoo ñoo ñu laa wax fi ñu commentaire woon nan dem commentaire fa seen numéro téléphone en tout cas xam numéro yi day euh, kii profil yi day confondre voilà ni ñoom la. comme ça ñu woo leen ñu jox leen seen ticket mën ngeen ñoo woo tamit bu leen neexee ñi gagné laa wax parce que ticket yi du ci woo téléphone bi ngeen di gañee voilà ñi nga xamante ne si ñoo gagné buñ ma woowee day gën a yomb voilà buñ ma woowee après damay dem xool ñoom fi ñu commentaire oon xool numéro téléphone yi est-ce que na voilà mu am fiabilité ma euh, jox leen seen ay ticket voilà mën ngeen ma woo ci sama numéro téléphone ñi nga xamante ne si gagné nan voilà ñi ngi nii El Hadji Simis Carter Kala gars yi après dinaa joxe beneen question bi ah El Hadj Simis Carter Ka Khalil Thiam ak Khadim Cissé voilà mi ngi nii gis ngeen ko xam naa boo leen gisee seen bopp di ngeen ko xàmmee comme li ma leen wax rek bind leen ci comment fi ngeen commentaire woon seen numéro téléphone bu leen neexew si tamit ngeen woo ma voilà ñu xool ñu vérifier seen profil après ñu euh, jox leen seen ay ticket voilà gars yi kon ngeen wéy di abonné question bu bees bi nag du sax question dañuy. pronostiqué ci match bi nga xamante ne sii ci ajuma bi tey mooy daw ci diggante Égypte ak Sénégal bind leen score match bi ak ban équipe mooy gagné kuy dóor ñaata lay dóor ci ñooñ nga xamante ne sii ñoo gagné ñoo joxe score bu baax bi la ñuy tànn ñett ñoom ñu may leen ay ticket donc gars yi mi ngi noonu bon chance yéen ñëpp ñu ngi leen koy souhaiter di leen wax euh, ba suba jàmm wala ba beneen vidéo comme nii ci kiis bi incha allah. voilà di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen wax ngeen woy di abonné